suratu al-jaahiliyya saaru aji boos parce que bu ko defee makala illaa comme ni ma amoon wala ci juróom daan la aw saban ci juróom ñaar wa salaam salaam nga xam saa yaa ci caa ci ci waa sama wax sama ci bu bu rahman ci laaje tawar dina wax ndox jaar ñu yàlla yi ci laaje tawar dina daa ci alaxira am ñu xaanin allah ya rabbi wa jalla murad yi ci ñu ngi ci jaamin tamjil kitaab wa salaam alquran dina laaje ci kanam yàlla ala ci ci laaje ba ci borom ala ci ñu daaje kan ci jëf de alquran jëlee man la bàyyi ko mu màgg mu de moo ko tax a màgg bind na fi samaawaati naka ji nekk la ci bind ak asamaan juróom asamaan si rek salaayam doxab juróom téeméer yaaram doxab juróom téeméer digganteem ak suuf doxab juróom téeméer mu mu tiim mbindee bi ba fi àddina si nekkee ba léegi guddee bëccëg bi ci wutoonte noor nawet malaaka yi dëkk ci te karna fu mu nekk ba mu fi ne la tey doomu aadama ñu def ci jëppal la ka tabax di jëmbal ka gën a béy ka jàppee ka ñuy doomu aadama loxolaan ba si ñoo gis kenn ku yàq liggéey suñu war a defaraat na ci loolu laa dañ fekk dañu fekk rek kàttan ak boobu ñun ñoo ñu ñëwee gën ñëwee xam nga loolu ku ko def tam nekk na ko mooy ay jaam rek bu fi kàttan mu aju nekk rek bind seen yéen di ji ba asamaan sax pare na te bind ji def ci ci loxo gannaaw ak la jógee ci lumbu gannaaw la woo léegi day doon adama ñu kafañ kafañ yi wa maa yabusu alnaahum fasale min daabatin ci daaba ak ndumbe bi nga xam ne moom la bind fasale ko day yéer nag yéer yéer yéer xam ne yëpp nga am nañ ñu ko di leen wër nga xam ne yàlla leen ko bindal fàggatal leen ko nekk na ca ah ñu fekk nga xam ne ñoom yoo xam ne ñu ngi wóor wax ci laa di léegi ak ñàkk la ñu wuute guddi wala aaree bëccëg ëccëg jàmm guddi daal di ñëw jë jëngaloo ko benn riis jëngaloo ko benn wenn ci bëccëg ba mu yàgg rek nga gis guddi daal di àgg wa ma la wasa mata yàlla mina samaa ke jaa sama am ci laa moom taw ak taw bi nag ko ci wàllu asamaan waaye atam dundal ci ci moom dara suuf ba demoo te yaa ci gannaaw wa tasriij yaay ak toppatikum jalaw yi ñu ñëw di jëndoo di ñëw di simaal ñu ñëral ñëw sedd ñu ñëw tàng nekk nañ ci yooyu yëpp ah suñu fekkoon fekkoon ñu ñëral ñu yàq nañ ñu ñu ñu tëbale yoonu jëkk na ne bind gi nga xam ne te na ko asamaan ak suuf loolu moom kës la moo tax ku gëm rek xam na ko la ca tegu nag mu ne kaaba yi nga xam ne moom la leen yàlla bindal tàggatale ko loolu yi nga xam ne am nañ jëm ba am nañu yàq yi. taw bi dana fi li ca tegu soppandi ci diggante bëccëg kooku moom na fari la ak ak taw ko ci asamaan di dundal suur kooku mu ne taw bi la waaye ñaam ñaam ñaqelu ndax ñoom rek ñoo ko mën a dégg rek ñun te yooyu la aayatu laay ñooy taw bi yàlla ndax doo aadama jàng ko xale ci yow Muhammad la am ci dëgg soo bi ay hadiis ana son solo yow ñoo ñuy waaw balaa yëkkë gannaaw suuna si yàlla waaye ati yàlla alquranam ma jàpp yàlla jëmmum di waxal gëmuloo alquran bi la di ko dégg gëmuloo ko wan gan wax nga war a gëmal ak wala ñun tax a mbugal kulli afaatin war na ci bépp rëdd yaa kon asi ko di bakkaar laa doon def yëpp maanaam ko gënoon dégg ak la alquran yàlla tur laa def na jàng ko alaykum moom su ma yusiroo topp ñu muur ci kéefaram mu kat yi mu hajiree lu ma gëm dana lam yasma daanaka dégguñu ko dégg alquran bana si bañ koo gëm ne ñu dégg ko xam-xam biñ defee te loolu moom ñàkk am ñooyam soo fekkee loolu am la ko gaa saa lañ ci wala alimum laa di métti booy daa alima dem xam na mu min ayat a ci alquran quran suñu seen la istaxasa mu jàpp ko hukaan mu luñ reetaan hukaan mu luñ yëngi de ulaay ka ñu ne la gaay loolu waa nag ñoo xasaaru mbugal muy muur borom ak borom leen di waaye ñun aju nekk la fekk nañ seen jaanamu jaanama ah wala yoo xam ne jëlee ci ñoom ci ñoom maaka sa borom ñu fàggu woon ah sayam dara wala am na taxaw loolu yaa dem nañ jàppoon ñu doon laaj ci biir yàlla yaa ji yaa xeet wala mu ah war a ci ñoom saa woon dugal asib mu daa jëmaat rek afa ji daa xuraan pour dana aju mbugal Aliou Moussa ñu ngi gis buur allahu yàlla daf yi buur bi nga xam ne na mu làkk mu ñëwee dina di tëj leen dina daw am pour pour am ci moom bi am nañu ci digal yàlla ci fàggat ñu ci te saxaar yi ci dox lu suuf et dafa am na ngeen sax ñu fa ñu jéem a wër wala alaakuma booyee sax si la ngeen sant leen ba saxara fàggat na mu làkk mu maa fi sama laaj na ci asamaan di juróomi yàlla mois de terrain di juróomi yàlla yàlla yéen di yóbbaale di ñu ci defar moom de dina fi daal di ko nakaay dina ko def ci loolu laa di tëkkale di tëkkale yëkkal ko te xaw ma yàlla wax nga dafa xaw ma yàlla dina xalam de kon dina dina amoon yàqu laa dina ko gën a koosa wàcc na ci xale bañ mu mooy mu rey seen ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne xale bañ mu sara Abdoulaye Ubay ebal aw saraw jaamam ne ko na ko rootal jëfeen ba mu dem guddee lool mu ne ko du la tax a guddee mu ne ko jax jaaw saraw jaamam Umar ibn Xattaab moo toog ci dafa teen ne kenn du root lu may ba kañ feefalee mbuusam yonent bi ak mbuusam baaw gara ak mbuusam mu ne loolu mu ne waaw mu ne see ndax am suñ diggante sañi Quraysh moo mooy la yàlla waxoon ci seen léeb rek duufalal fa xaj mu lekk la dégg nga wax ji dina li ko fi ñu naan wax daal di bocc gàncax gi ñëw na yoroon ci jox ma ndigal ma fekk baatal Abdoulaye moo béy bee xeefar la ci jullit de sangam nangam de sangam moo wax nangam ne ko yaaram duñu waxtaan mukk ne Muhammad ma ngay rey ay saaba moo daal ne ko waxal li def na ñaan ñaan amoon gëm nañu yàq loolu baal li def na ñaan ñaan laa jëloon ragal ñu naan yàlla laa jëf yàlla yi de nañu leen baal rek ñu leen topp yéen si la jënd na fa yàlla aw na aw it maataaru ci lañ nekkoon yàq ci mën a doon xam ko rek maanaam la ku def na mu faale ak jëf yi ñu fay na fi jëf yi ñaan na boppam ku def lu baax sa bopp ndax sa fay yaa fay jël wa man asaa ku ñaawal na mu faale war na boppam ku def lu ñaaw sa bopp ndax yow la ñuy fay fay. bu ma ko ñaan dafa dellu delloo leen ilaa rabbi si jëm jëm ci borom jëm de wala xalaat yi naan dañ def moom bani Israël bani Israël al kitaaba tawreet ba jëndi itam wala bu wasa atam yonent ñaan Muusaa Haaruna war a sax naam seen leen ne tey laa di ci way di ci mën noo kalwaa xabal naam seen gële leen alal alam leen ci leen jaw na seen de waate naam seen jox leen bay naa ci kaw dañu doy gis ne la bay jiraala moom ba baqara boo wuute wuñ ilaa min baadi maa jaaw dara gannaaw bu dikkale na alayhim xam-xam wax leen di gaañaan baynahum diggante seen na rabbaka naka borom sa yàq ñu dana marté baynahum diggante seen ñoom xiyamati gi tënkal yàlla ci maa kaana ci lañ ne koy laqali fana di wuute ci ci moom ci mbiram diine de ma maa ka topp mu def la yow Muhammad ala sariyaatin ci yoon dina lamri ci mbiram diine ba tabi a topp ko dem mooy sariyaatin islam de wala tabi bul topp awa la dina bàyyi naka ñooñu laa la mun a xom di jaamu yàlla de innahum am te wajis la dina laay ci mbugal sayan dara way nun waali na way la dina baabum ñaan si yàlla aw yaaw baa nun wali ñu ngoo moom wali mu taqil ma aji ñango wayala yàlla de xaasaa ji fasaayiru ay layla dinaa fi ñaan ñi de woo dan te ay jubal wala ma tunte yërmande a xamuñ yelaaw liñ yokk nañ leen dinañu xorole am bayit asi ba dafa jottu alle dinañu añe in kalamo fagiliñi te asi ñaaw kefie am yel nañ leen kede ke ñi kam ñaaña amono def nañu ndax def kat yi mbon yi dañoo defe ne yàlla dafa leen jéema leen def kat yi baax yi waaye ñooñu yàgg nañu joon si jooni laaya waxam ne yow dañ jot taale asi ba dafa ay naafile baaxoon na jéem wala maa yaram ak dundu jéem a maa tuuma ak def yàlla dina def ñu def lu baax ñu def lu baax. déedéet du def loolu de saa bon na maa mun a àq seen def allahu yàlla waxal xalaat bu ñu ne yàlla sama waate ak man juróom yaar wala laa suuf bi àq ci dëgg way suñ saa ak ngir na fay def kullu nafsin bépp bakkan dinaa taxawal te lam fag woon ne ndem yiw la ndem ay la de wowum te ñoom lay sagul deful wàññi leen afalaay tasala téema ma ne taxa faka njàppanamu ilaa wa yàlla ma xaw muy bànnee xa bakkanam kéefër ma nga njaamu doj waaye dëgg dëgg njaamu doj wa la la neex bakkanam la topp rek tax na le seen bànneexi bakkan mooy xel yàlla wa abalaw laaw sëréeral te xam-xam xam na yàlla ba naatu wàcc ko fa dem di jaamu kasta yàlla ala sam'ihim ci déggam wa qalbi xolam wa jaala tam def ala basari ci bëtam isaawatan umuraay faman yahdihi ana ku dana mu jubal ko min ba'di llaahi fekk naa réer lan yàlla afalaa tazakkaruun te la ngeen waaru ko gëm de kooku kenn mënu ko tax a jum de wax nañu maa ngi déet moom dekke illaa xayaatunaa dara dund de ñu wax du daal lu mooy dund na muutu danañu dem wala naxyaa te dund ay doom sunu ñun dinañ dee waaye suñ dee bàyyi suñu doom rek mu mel ni deewuñ de au moins yow di konante biir bi xale mu ngi def daaru ndara jamono te yàlla ji ñu rey ka dekkal newu fi jamono fi ne rek bu jamono ñu ba yàgg rek jamono ñuy rey wa maa lahum déet ñee leen di taalika ci jëj la woon leen ñun xam-xam de yéen mu déet ñoom illaa yaquuluuna dara danañu jortu njortu rek way sa tullee dem jàngeef naa leen ñoom ayatuna alquran sunu bayyinaatin di muñ di way reer ay lahi maa kaana nekkut hujjatuhum di lahi teen ñoom te la am xaaroon dara yo waxteen iitoo di kegen bi a bàyyi naa ci bàyyi sunu in kuntum dem nekk ngeen saadiqiina di way dëggal dem dekk dëgg na indi leen ñu suñ bàyyi deewoon pour waxal ne ndaaw yàlla yu yi kum dana mu dundal leen ba ngeen nekkee toqante man yow su ma yëngatu kum topp dana mu rëdd yéen fa jeexal dig seen su ma yëngoo kum topp dana mu boole leen ngeen di wéy dund di daal xayamati jot tey jëm yàlla laa ba dee picc fii ci moom de walaakin na lu fi nag asara naa fi gën jëm ba ñu yéefari laa la mun a xamuñu loolu de wala laa ji nekk la ñeel yàlla mun ko sawaati guur ak asmaani juróomi laa wala bee suy yaa waaye ma taxawum bés ba dina taxaw saxaatu bés tey yow may fi mu des ak keroog yaxsaru dana na way ree dañu def watara ñu saxal kulla ummatin yëpp xeet ci xeet yi jaasiyatan ñu di woy boof keroog xeet wu ne daañ leen teewal ñu boof ci seeni woom de kullu ummatin yëpp xeet tunaa def naa waa leen ilaa kitaabi a ñu jëm ci téere seen de xeet wu ne ko sa téere njëfa gi yaay jàngal sa bopp ba ne texe naa wala nga jàng ba ne ay yow ma tey piñ sa war a deew na fay leen maa turtum la ngeen nekkoon ka ma doon jëf ko buur na aasaani le kitaabuna téere sunu aasaani le kitaabuna diwaana way wattu sunu haa dem te ku dara mu wax aleykum ci yéen bi la karne yi malaaka yi doon bind seeni jëf mi ngi seen dëgg rek loo masa bind loo masa def wax nañ ko loo masa wax loo masa def bind nañ ko loo masa wax itam bind nañ ko inaana ko nun ku naa nekkoon nun yàlla na stamfe di bindu maa ko tur la ñu nekkoon te amul woon doon jëf de te amal la dina baax ñu ne amoon gëm nañu waaw dañ jëf saa yaa ci farata yaa ñoo fi de bay xërum dama xarta leen rabbu mu borom seen salaamati ci aljanam ji rek daal di tëral woo moom alfaw bu ma di taxe am bi nu gëri ayi bit wa amal la dina baax ñoo nekk fororet nañu daañu leen wax ne afalam takku ndax nekkutoon ayaati alquran sama tur laa leen jaaral baale kum ci fa takbartum te kuntum ta ngeen nekk xawman di nit mujrimina ñi di way weddi wa idaa qiila ne waxee fa ñeel leen ee yéen yéefar yi inna wa'da laahi naka dëgëral yàlla kii dekk xaqun aji dëggu la wa saa'atu bés penc moom itam aji dëggu la laa ba dee sikk te haa ci moom kultum yàlla maa nadri qawnu ma saa'atu luy bés penc inna wannu dee nuy njort ilaa wanan dara njort inna wannu dee nuy njort ilaa wanan dara njort rek waaye xoolu ñun gëmuñ ci dara wa maanaam waaye déet ñun di mustaqim ñu di way royu wa badaata feeñ lawum ñaan leen jaalakra nag te yaatu maami loolu way ñaan yi la ñuy defoon de waxaaka tawa ci ji ñoom maakaano lañ nekkoon yastahduna di yéeg bi jimoom de waqila tawaxeel al yawma tay nan feekum nan feekum la niis bëyi leen ci safara si kama na fiitum naka ngeen bëyi woon liqaa yawmikum dajeeg bés seen xaafaabilede wa mawaakum faxwaa seen naaru safara wa maa lakum leen ñaareelu min naasiriin way tere mbugalam yàlla de daanukum loole seen te annakum ci saas dana kay yéen istaxabtum jàppoon ngeen ayaati alquran yàlla ba di lu ñu yëggi wa xarrajtum taxab leen alayaati dunya dunde wax dina ngeen wax ne dekki xamul hisaab xamul fal yawma tey laa yuxrajuuna defu génne leen min ami tukki ci safara de wala hum déen ñoom yustaxsabuuna defi delloo leen ci àddina ngi tuub fa lillaahi aji nekk la ñaar yàlla alhamdu cant mooy meloo rafet rabbi samaawaati yàlla kay borom asamaan yi juróom yaar wa rabbil ardi kay borom suuf rabbil aalamiin borom bindéef yëpp di teg ci néeg waaw lu dul ñoom wala la woon ñaal na ko al kibriyaaw ak rëy na ne moo di làmbaayam a màgg ñagam bu xëccoog moom ci yaaru mu tànn safara du faale ci samaawaati yi asamaan yi juróom